ministre de formation mooy il faut que ñoom ñu former leen ndax député dañ leen a war a former mais fii di député Macky Sall député nangam nangam yoo c'est député de peuple danga ñëw pour waxal askan wi askan wi sam ñoo lay déglu nga ñëw maanaam wax loo xamante ni tey jii. te doo wax ak yow quoi xam nga nit koo xamante ni kenn boolewul ci say mbir yow kan xawul foo jógee c'est pas la ñu lay tontu quoi monsieur le ministre. xam nga yëfi baadoolo yi mooy nekk nii rek nit di wax nga koy dagg sa comme ça yoo xamante ni teguloo ko fenn voilà. 87 personnes tey bu nu waxee 19 heures la fii ba 7 heures ci ngoon du ñu jóg te ñu war dem ñoom pour liggéeyal askan bi ñun député opposition juróom-ñeent nit ñoo ci bindu yéen ngeen wax fu 82 personne lan ngeen mën a wax loo xamante ne dana yokk ci li ñu defoon dara amul kon am na loo xamante ni yi saboté la da ngeen di yàq. kon jàpp naa ne il faut que président de la république wax ak le président groupe parlementaire bi mu nekk koo xamante muy organiser seet ñi nga xam ñoo mën a wax ñuy wax mais koo xam ne boo waxee kenn du xam li ngay wax c'est pas la pour ñu wax wala ñu naan député Macky Sall wala la euh, monsieur maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la féliciter encore di la ñaanal yàlla li nga xamante ni mooy li nga tàmbali nga àggale ko am na ay engagement yoo jël daaw am na lu jotoon a def am na lu def bëgg naa xam engagement yooyu noonu pour conformation yi yi nga xamante da nga ko def au département Mbacké lu ci mel ni Daaru Xafoor Dendey Doyooli lu ci mel ni Ngaabu Ngaabu diigaan ku ne xam na ni Digaan dëkk kilifa la te diggante bu mut sax un kilomètre lu ci mel ni Ndindi Touba Bogo lu ci mel ni Taïf Sadio nga xam ne depuis jamono Senghor ba léegi Sadio amuñu tëli kon yooyu yëpp bëgg naa ñu xool li si mel ni ko am si Kayel ak rn ndax ku ne xam na ne président Macky Sall bi mu demee sa sur l'élevage bi mu doon def au niveau de Kayel mënut sax dugg biir Kayel dañoo mujj jël maanaam bâche bi tuxul ko si kaw tëli bi ndax tëli bi nga xam ne moo jóge bi dugg Kayel tëli bu baaxul kon loolu yépp jàngal yoo xamante ni war nañ ko maa defar pour que waa Kayel mën a gis seen bopp ci nguuru Macky Sall gi leen li nga xam moo si toppaan nga xamante ni tey mooy tuubaatul kër Samba Kane le monsieur ministre finance ku ne xam na ne tëli boobu dafa am solo te président la dafa jël ay engagement ñu tàmbaloon télé bi jël fu matériel tàmbali ko tey jii fi may wax ak yow ña fa nekk ñëpp jël nañ seen i bagage nee na fayuñu leen yàpp nga bëgg naa xam télé tuubaatul kër Samba Kane boobu fan ngeen si toll est-ce que da ngeen ko àggale ak kañ ngeen ko mën a àggale kon daal monsieur ministre li nga xamante moom laa lay wax mooy yoon baa ngi noonu na nga gën ubbi sa bunt di wax ak askan wi tey tamit programme moo jëm si TER bi ak BRT bi pour ñëpp ñu mën a jël ay pour que mag ndax lépp bu yokk yokk askan wi la nga xamante ni mooy waa service de mine ñu xool tam nu leen mën a accompagner jàppale leen ndax sonn nan tey tam la fay ñëw ci ci ay personnes bari na ñu yokk seen équipement yokk personnel bi ndax vraiment ku fa dem rek seeram day daw ndax seen kii sax ci suuf lañ koy teg li nga xamante ne mooy service du mil bi nga xam moo nekk Colobane aussi rendez-vous yi jël mett na si askan wi ndax fekkee danga nga jënd oto mu ñëw nga génn ko ba par ñu may la CMC 15 jours nga war a def mutation pour jël rendez-vous ñaar fukki fan jàpp naa ni rendez yooyu noonu ñoom dañuy liggéey ba 11 heures rendez maanaam oto yi jeex ba par ñu toog kon jàpp naa ne rendez-vous yi war nañu ko mën a dindiwaat képp koo xam indi nga sa oto boo ñëwee ñu jël bu seen wax heure wàcc jotee ñu wàcc kon loolu mooy li nga xam moom laa lay conseillé maa ngi sant secrétaire d'État bu baax a baax ci ambition yi mu jël ak initiative bi pour que terre bi ak yi nga xam ne mooy raay bi pour que ñu mën a génnawaat tëli yi pour diggante raay bi diggante Touba ak euh, Dakar sa war ak Thiès maa ngi lay sant di la gërëm. merci bonne continuation bonne route. mais am na si ñoo xamante ni dañuy saboter muy le euh, député bojo bojo yu Macky Sall. merci nous passons la parole à